xam ne lépp lu muy def bi yàlla laaj sa xalaat sugal lépp euh, depuis ñu commencé liggéey ba léegi alhamdulilah toujours day am progrès day am progression anniversaire yi dañ kaa def en général mais daaw dafa ni foo ñu jéem a rénové rénovisation ñu a def comme di yére galaaw waaw moo tax ñu ñëw bon xëy na sax bi ñuy ñëw aussi bon ak événement bi am xalaatuñu woon man en quelque sorte xalaatuma woon ni liggéey parce que am nañu bëri jóge France parce que mu ambassadeur benn organisme IBCK jóge nañu France ñëw nañu mais ils ont peur de parce que dañu ragal événement yi ñenn yi jóge association mag dañuy def dañuy aide sociale mais mënuñu ñëw à cause de l' événement bi ñoo ragal quoi mais bu daal xam nga daal la salle est pleine ñëpp ñëw nañu mu fees dell Demba aussi dafa nekk nga xam ne dafa am bi nga xam ne c'est une musique parce que am na contrat yu bëri ñuy joué à dafa tey dafa dal dafa yàgg dafay déglu xam li gën a jàppe mooy at bu ñu xasee affaire yi seen bopp alors que moom yooyu yëpp yanu donc loolu moo tax on dirait que moom suma mën na sax nekk suma doom parce que Ama bëgg naa ko benn temps même au fait ne ay morom en tout cas c'est quelqu'un qui xam ne dañ koy ñaanal gën a jëm kanam yaakaar nañu aussi musique africaine surtout sénégalaise dana merci beaucoup Bamba ñu ngi lay jaajëfal merci beaucoup di la merci merci gisee a wax kontaan de kontaan de moom bu baax a baax di ko ñaanal yal na ko yàlla may di ko fete at yu foogu ñu ko woon sax nag tubarkaal bi bindoo jamono bi ñu toll nii mais bon sant yàlla bu a baax yàlla xolam la ko fay rek moo tax ñëpp ñëw du dëgg mu wootee àdduna bi ñëw comme que tey Demba Guissé mu nekk a mag a bi ngeen gisee mbooloo bi waaw dañuy kontaan nga nag ah, kuy min na mbalka mbooloo mi defe naa ne miin nañ ko danoo peut-être euh, dañ koy ñaanal rek jàmba mu gudd fan loolu fi mu ko teg mu teg ko foofu noonu parce que mun naa way yaru na di gën a am important Sénégal c'était ça donc il faut nga yaru ba pare mën na li muy def donc yal na ko yàlla defal jàmm dañ koy ñaanal ak démb waaw loolu nag ay maga rakk lañ ñoo bokk ndey ak baay donc bu ñu fawul lu ñuy def du dëgg ay maga rakk lañ ñun loolu la ñu xam quoi loolu la ñu xam. d'accord merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal kàddu yi rafet na trop waaye tey sëñ bi tamit naaj na ok merci. Yeah. tey nga fekk di sa nekk tamit artiste boo ñu mënoon a war wax sa lien ak Demba Guissé waaw démb comme ni may wax rek euh, yàlla def ñu boole ndax bu baax euh, sama digganteeg moom amul ku xam démb xam ci ci tey muy def premier anniversaire ba tey du dëgg kon su ma ma jàpp ba ñu kawal ko dooleel loolu moo la euh, géej laa gis titi lan waa xam nga comme dañu génne son bu boo xamante ni moom laa taamu nekk beneen solidarité lu may ko fan si bàyyi ñu employé comme ça ñu mën a nekk ci liggéey bi waaw. comme daanaka daal euh, bu ñu la euh, déggee ñu euh, tëdd yaa ngi ci yeneen projet yu bokkut ak single bu bees bi nga génnee. waaw ñu ci yeneen projet d'accord tey ban message moom ngay lancé ci situation bi nga xamante ne nii actuellement fii ñu ngi koy dund. waaw xanaa ñaan yàlla jàmm nag. ñaan yàlla jàmm suñu borom dooleel ñu vraiment taxaw parce que tamit euh, ñun Sénégal dafa ñam yal na fi yàlla wàcce ñu naa la jox la sa wàccuwaay. waaw mais soxna Ram maa ngi lay di la jox sa wàccuwaay yow itam di siyaar sama caméraman bu ñaawul bi chimère mbokk bi yaay Rama mais Rama. waaye li nga li li nga beral dem ba gisee loxo nii bari na doole. gis naa non bari na doole yaa jom nga ma euh, ki nga xamante ne euh, moom mooy dem ba gisee waaye nga def tey si biir li nga xamante ne mooy prestation bu rafet rafet tey boo ñu mënoon war ma sa relation ak ki nga xamante moom mooy sa patron di dem ba gisee. waaw dem nag euh, su may wax ci moom lu ma wax ci moom dama koy xeeb doon na nit ku baax. nit ku am yar nit ku yëg aussi doomu aadama loo xamante ni moom Euh, yéeneem ëpp na suñuy njort barki Serigne Babacar Sy euh, ma koy souhaiter bonne continuation di ko wax ni li macha allah ku ne xam na ni tey dëkk bi nu mel ku ne xam na ni dëkk bi nu toll kenn ñameetu la génn waaye ndeysaan ndemb bu joué daal ñëppay bàyyi ñëppay jaay seeni lool mais ah, mais mais waa es waa suñu people waa waa suñu people mais yéen a fi ne yéen tamit <laughs> ngeen baax loolu di jël Yves di sama grand mais aussi Modou gis nañ ni yow euh, da ngaa polyvalent parce que dëgg la tey si Demba euh, foofu nga fixé mais souvent aussi dañ leen dañ leen dañ dañ lay gis si yeneen chaîne te yéen relation nga am ak yeneen artistes yi ba saa bu buñ la soxlawee nga dem waaw loolu yoon la xam nga man damay xale ndeysaan man naa ni lu bëri xamuñu ma mais sant yàlla may ànd ak sama grand muy Kora fay buy tëggal Coumba Gawlo tëggal Momo di tëggal Pape Diouf fu mu dem rek daf may bëgg a yóbbu mu bëgg ma lool moo waral tey ma am ak euh, euh, artistes yu bëri yenn affinité ñoom tamit euh, ñu bëgg ma fonk ma ku ci mel ay Pape Diouf ay Momo ñëpp daal man daal artistes yi daal gàcce ngàllaama yéen ci kaw ci kanam rek laa leen di parce que bi ngeen avancé rek ñun ñëpp ñu avancé. te lan nga lan ma may ko naan takku ko sakku ko sakkin paceekit pax yi suus gi xamante moom mooy Ibnou Thiam nekk si série Babel ñëpp nag woowee ko borom logique tey nag ñi fekk ko si soirée ki nga xamante ne moom mooy Demba Guissé mu chargé nag euh, ci wàllum organisation Ibnou ñu ngi lay nuyu comme ñëpp di di woowee si ah, bu baax a baax. <laughs> tey ñu xamante ne moom mooy si Demba Guissé nga yore wàllum organisation bi tey lan mooy sa relation ak Demba. Demba est-ce que dinaa mën a expliquer ci moom. parce que mais nag ñuy tuuti rek. parce que lui c'est frère. xam àddina la mu gën a neex. Mm-hmm. boo xamul nooy def nit ki rek ni la def moo ko tax parce que dama ko fekk mu nekk ak ay xaritam mais mu jox ma benn confiance boo xamante ni man damay laajte nan laa def ba dem ba jox ma boobu confiance maanaam du def dara te waxuma ko tey boo xoolee anniversaire am yi muy def yëpp day jël organisation bi mu teg ko sama loxo kon kooku am na fu ma teg foo xamante ni man mënu ma ko mesurer te mënu ma ko wax damay wax rek ne ko moom yàlla na ko yàlla jàppale. li mu bëgg yàlla ko yàlla defoon la parce que je sais même pas mhm. les mots mhm. pour wax sama diggante ak moom. parce que moom li ma def. d' accord tey ñu jox la lu toll nii euh, nu mu organisation euh, ak dëkk bi tey euh, nu mu meloon est ce que yow tey yaa yaa ngi doon xaar mbooloo bi ñëpp ñëpp ñëpp ñëw wuy si Demba Guissé fii de la fii si place du souvenir. xam ma Demba boo koy boo koy boo koy boo koy nat. Mhm. Demba Youssou Ndour mën a tëgg sax. si plaza mu tëgg fii ay nitam dañuy ñëw parce que nit ku nekk ak ñi la bëgg ak ñi la sopp dëkk bi xam na metti na yëngu na mais gis nga salle bi dafa fees kon donc loolu moom la ak digganteem ak ay ak ay ay sam ak ñi ko bëgg parce que moom moo ko séq ak ñoom moom nekkul rek seen woykat mais dafa nekk xaritu ñëpp kon donc moo tax moom fu mu wootee ñëpp dañuy bàyyi li ñu jàppoon daal di ñëw dem nga gisee moo nekk benn artiste boo xamante ni tey mënoo ko nat mooy artiste boo xamante ni doo ko déggul ci lu ñaaw man sama sama man dama ko faan mhm. parce que dama bëgg mel ni moom dama bëgg nekk benn artiste boo xamante ni kenn du ma dégg ci dara comme moom mhm. ci moom laay xool ba pare mu nekk un frère mhm. nekk un conseiller maam lu mel nii saa su ne da koy am ma xool ba instant bi ni bu doon dëkk bi day tàng salle bi fees parce que nit ñi ñëw la tey ñu xammee si fi ne ni gaa yàgg na si milieu cinéma ñu ñoo gis la si Chérie Babel nga koy toj eh, ñëpp naan im ñu taam logique im ñu taam logique mais tey tey im nu la nga ñuy wax ak logique waaw parce que logique bi daa mel waaw xam boo xoolee àddina. Uh-huh. lépp dafa war am logique. tey lii ngeen di def nii di ma interviewé dafa war a am logique. parce que boo amul woon logique. Uh-huh. boo ñëwee naan ma Ibnou Thiam dam naan la li ngay waxee ak man amul logique. kon àddina ba ci sa néegu sëy ba ci say xarit. ba ci li ngay liggéey lépp dafa war am logique et donc c' est ça que je voulais faire comprendre aux Sénégalais c' est un message boo xamante ni pour mu permettre doomu aadama bi lépp lu muy def ci àddina rek mu xool logique parce que bu la def dara rek rek nga tàkk xoolal source bi xoolal logique bi xam lan mooy logique bi après nga daal di doxal Sénégal jëm kanam mais tey aussi euh, lan la ñu mën a euh, mën a xaar si série Babel si yenn épisode yi nga xamante ne des na te nga war cee bokk dama koy bàyyi mu nekk suspense parce que bu ma leen ko nettalee. Mhm. war ma wax leen li ci xew. ba leen koy du neex. d'accord xam naa ne daal li wér te wóor mooy. Uh-huh. Babel mhm. commencé gul. dañuy def placement xam loolu ñuy def passante tiki taka. waaw waaw ñu koy passante tey ñu jox ko Xalil. Uh-huh. suba ñu jox Faa tey ñu uh-huh. jox Ibnu ginnaaw suba ñu jox Tidiane. ginnaaw suba ñu jox Bakir wala Nabou Thiam noonu la demee. mais Babel. 64 épisodes. ñu ngi ñëw toj Sénégal. mais ñu euh, ñu yóbbante si Nabou Gueye waxal na euh, Nabou Gueye na bàyyi la muy def torture bi. waaw xam nga toog ci wu ko xam nga mbëggeel dafa bëri façon am na ñoo xamante ni dañuy bëgg seen jabar ba day am lu mu demee am ñoo xamante ni dañuy bëgg seen jëkkër ba mu am ba duñ ci am sago mais loolu la rek ñuy wane ne rek jëkkër ak jabar am nañ ay melokaan ci biir néeg am nañ ay melokaan ci ay yëf mais Nabou mooy Nabou Gueye. Nabou Gueye mooy merci beaucoup. je vous en prie. ok jaajëf. <laughs> xam nga lii mooy wane ne da nga encore une fois xol bi dafa yaatu ndax lii bu sa xol yaatu munoo ko lii dem lii muy def lii mu def nii nit boo koy rendre hommage da koy rendre hommage bu fekkee lii dañ koy bind ci pétan dañ koy bind ci histoire Sénégal bu nga xam ne ne ku bëgg Kaolack salade yi baax naanam platine d'or disque d'or jël na médaille yëpp ci wàllu waaye li gën a am solo ci moom muy bëgg ki mu bëgg ndeyam ji dañu fas seen bàyyi bokk seetaan moom ku mbagaw seen i clip da ngay da ngay am chair de poule ndax li ñu bëggante ñoom ñaar démb sa yaay ngi nii am na kàddu yu bëgg mooy neex xolam